seraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba sunu làmb jàngat la mu xëye mooy mbër yi fi nekkoon ay adversaire de taille tey ñu nekk ay xarit intime adversaire hier ami intime aujourd'hui noonee la ko journal bi dippee démb ba nuy door seen carrière fi bëri fi bëri yu metti muy Balla Gaye 2 ak Baboy ba leen làmb xeex nañu xuloo nañu jeexee tey ils sont inséparables fi mu toll nii foo gis Balla Gaye 2 gis fa Baboy Modou Lo ak Papa Sow seen combat ba amul benn amateur bu ko fàtte combat bu neexoon tàng kurpeñ ñey mel ni mboojum gerte ñoom ñaar ay xarit lañ ay lonkoo lañu ay àndandoo lañu ci wàllu entraînement ak voyage foo seen Modou seen fa Papa diggante Gris ak Eumeu Sène moom bokk na ci combat yi gën a metti ci làmb ji amateur yi boo leen di laaj combat bi gën a yàgg gën a metti ci làmb ji dañ naan la diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux tey jii ñoom ñaar ay xarit lañ ay àndandoo lañ ay dëkkandoo lañu Gris ku ko laaj sa xarit intime mu ne la Eumeu Sène Eumeu ku ko laaj sa xarit intime mu ne la Gris Bordeaux journal ba fi tegoon le 15 foofee ca Gambie te mujj toon am diggante baamee ñu na moom le roi des bu Gambie la mu bëgg mooy leeral diggante boobee moom mbëru Gambie bii dafa taxaw temm ngir leeral digganteem ak Baye moom bëgg na diggante boobee leer ku ne xam kan moo mën sa morom rax ca dolli bu amul Baye te am rëg-rëg wala guy gi wala amaneex sax bëgg na en moom laa mbay dafa bëgg a bëri bu ñu jàllee ci écurie xam daan Batista 2 wax Jet Li bi la seen bilan dañoo passé à côté seen trois victoires yi Leysa moo daan Boy Ndiaye bu Mor Fadam Bébé Zora daan leer gi bu songaan gay Batista 2 daan Étoile Jolof bu Gànjool seen cinq défaites ya BMW moo daan Petit Baboy Ama bu Parcelles daan Gaynde Daaru Jam bu Kayaar daan Jet Li Gaynde Waalo bu Grand Yoff daan Baboy MC Mbër bu Lacrosse daan Segg Ndakaaru soq combat bi waroon dox ci digganteem naa ne Ada Fass ci saison 2018 2019 dafa defaat année blanche 2019 2020 saison boobee bëriwu ci kenn gisu ko bu dee Modou Diop seen coach ba la ma xam ne mooy sunu bilan bi dafa négatif bilan bi ñun waa équipe bi xamal nañu ko sunu bopp dara baaxu ci na booyi góorgóor lu ñu vigilant yoo ko cere dolli ñeex jërë ngeen jëf mbokk yi li gën a fës ci yéene gaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg